Abonnez-vous sur votre chaîne Equivox TV pour plus la cloche de notification. Franc Tyson 2 Vox Arena taxawal ko bi nga déggee combat bi lool. la parce que Tyson 2 dafa dugg ci këram daan fa ñaar daan Garga daan Gora te ku ne xam na Gora Sock ni mu mel mu metti ko. mu ne ko nag damaa bàyyi dangaa bàyyi ba ma teg samay nen nga fay sànni say xeer loolu tax Franc combat bi intéressé ko lool ndax ne na revanche bi da koo bëgg a dabu xale boo am coow naa la may chance waaye may chance taxul nag ma joxe chance damay may chance ngir bëre yow waaye ndama may tax a jóg pour yow continuer sama yoon Franc ne ko déggagu ma muñal te daa am lu ma naqari da ngaa dugg sama kër te dama leen a bëgg fayul loolu rek doy na combat bi moo jaay boppam non seulement ñoom ñaar am nañu ginnaaw mais combat amateur la ndax ba mu ba léegi Euh, amateurs yi dañ ci naan ataaye moo tax ma ne waa Vox naa dañuy dund làmb xaw ma kan moo leen déey mais yéen a ngi dund làmb loolu moom lu ma xam la. ma gis ni ki nga xamante ne moom mooy euh, Tyson 2 bagarreur la te Franc mësagul xeex wala boog bu xeexee bariwul day ñëw rek mbapat ñibbi. non Franc day xeex gars dañ koo bàyyiw xel Serigne Ndiaye xeexkat la xeex euh, xeexkat la ndaanaan la de ndax day xeex day bëre du la daw te erreur boo def mu ko. ñim daan jëpp ay bagarreur lañ mais bëre door lañ wax parce que doo xeex rek mel ni ku ne ci ring box mais day xeex mais faay boo def da koy exploité Tyson 2 euh, xeex combat mag euh, assurance wane fa xar kanam boo xamante ne nii non doo comprendre xam nga moom ñaar yoon la dëkk mu ñël ji nga moog doomu dàngu euh, boobu premier combat am la contre kuy gi ak digganteem ak Elton mais depuis boobu léegi nag lim bëre yëpp ndam la te ku ci ne du la may dara foo taxaw mu fekk la fa xale la bu jar a bàyyi xel kon mayul chance Franc pour daanu dafa may chance Franc pour continuer aliram ndax gis nga moo freiné góor a soog kon xale la bu jar bàyyi xel waaw mais Franc it nag moom ñaanul dara te loo ko te loo ko may mu mu jël ko ñibbi te xaarul combat rek pour bëre de tournoi yi fu mu dégg tournoi jël la fa ne continuer euh, préparation combat am kon xale la bu jar bàyyi xel. est-ce que mën na freiner ki nga xamante ne moom mooy freiner. ah tout est possible tout est possible. Franc neexul daan waaye bu mu nelaw ne mag laay bëre loolu erreur la déedéet loolu erreur la tey sa tey sa da kuy moom bàyyi ko xel bukub timis la boo ko dàqee sa gétt bul nelaw déedéet bu demee day dellu si <laughs> waaw. pourcentage combat bi. non ci kanam tuuti non ci kanam tuuti ñaari ndaanaan la ñu tout est possible mais nag euh, favori wala diw moo ëpp avantage maa ngi koy wax ci bu ñu demee ba préparer ba jàpp date may xool seen état de forme man duma def rek analyse ci li fi jot a def. waaw damay xool état de forme yi mais daal enjeu wu combat bi fi mu toll mooy Tyson 2 xale bi mu jël ndaanaan la te mos na dégg muñal te it du fo ci combat am na ñoo xam ne signature contrat li ñu wax duñ ko bërewaale. waar bi siwee dañuy def lu wóor te franc boobu la Tyson 2 it mbër la moo xamante ni yoon wu gudd te ñi ko war a jël jëluñ ko moo waral mu may xale yi chance pour continuer yoonam moom it jëlul combat ngir daanu dafa bëgg woon xale yi ne leen maa leen dàq a du ma seen morom. moo lay wane combat non déggoo ma dàquma laa jàng xam nga ne yow combat bi combat amateur la. merci beaucoup père. mais jërëjëf di leen ñaanal réussite nag te ñu ngi seen ginnaaw jërëjëf. si vous aimez cette vidéo n'oubliez pas d'appuyer sur la pouce bleue pour liker.